ñaanal mboolem kilifa yi diine di ñaan itam mboolem eh, njabootu lislaam yëpp borom bi tabaaraka wa taala xeetal yoon ñu gërëm ko mooy siraatul mustaqim te sàmm ñu te aar ñu eh, di amaat mbégte bu baax te àndaat ak yéen tey suñu émission yaru ak yare si numéro ñaar fukkeeli numéro eh, ci émission yaru ak yare ci émission boo xam ne ñu ko baaxoo wax rek toujours dafay ànd ak actualité waaye li ko gën a yitteel nag mooy dugg si biir daara waxtaan ak ñooñ daara dañ mën a rafetal liggéey ba man see jariñu di saatam mboolem nga xam ne tam ñu ngi ànd ak ñun liggéey bu baax baax te it rafetlu ànd bi mbokk yi laaj itam nan la ñuy def ba ànd ñu wax nañuy abonné rek ci compte euh, yaatal mbindum alxuraan boo ci duggee mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci émission yaru ak yare ak boole yi da koy mën a jot di ñaan tam borom bi tabaaraka wa taala ci liggéey borom bi nangu na ko di siyaar itam mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi di siyaar wax seer wax saar Kébé mu Cheikh Saliou Mbacké Eh, di ko jaajëfal di ko yokk ñaan bu baax lay wax amin sa maxtaar ndax mbokk yi ñu ngi rafet liggéey bi allah eh, di ko safoo tey di ko ànd ak benn numéro du leen raw loolu nag buñ ko amee xëy na si kàttanu borom bi taala taala ak li leen di jox xam mm. ñaan bu baax yàlla ñaan dolli xam-xam bi te dolli waaye di siyaar tam si Omar Sylla xam ne ginnaaw bi mooy àndaat ak ñun ci boole boobu nga xam ne Euh, kenn mënul wax alxuraan te doo ci ndax alxuraan si euh, defal ay tënk ba man nga ko kenn mun leen fay sama wax ne boo mosaa dem si aw xew ñu leen di ay bool dégg nga bu njëkk ñëw rek bay bon nga def si li nga si def daan yetta salla loolu si séena boo wàññee daanu boo njëkk a rek sàddaal moom boo demee si aw xew lu ñëw rek jàppal la ngay njëkk a seet. <laughs> jàppal la yooyu yëpp day nekk ay sew-sew. <laughs> Ah. yoo xam ne màgg ñi mag ñi yàgg nañoo def ak xereñte ci ci ci alxuraan yàlla leen leen borom bi tabaaraka wa taala fayal. Cheikh Omar si def liggéey bu am solo boo xam ne mbokk yi ñu ngi koy rafetlu macha allah di siyaar tam si Moustapha Sarr ci ñi nga xam ne moom mooy defar liggéey bi ba mu sell ba ku ko gis itam yàkkamte yàkkamte gisaat la leen di siyaar si Abdou Khoudous eh, ci yaatal gi ak jàppante gi xam naa Cheikh Massar Eh, suñu numéro bi jàll doon nañu waxtaan ci eh, njiitu réew mi nga xam moom la borom bi séddee eh, Sénégal xaj na tam boo ko jàngatee ak yan sa jàngat yépp ci ci ci ci ci ni ñu ko gisee ak ni nga xam ne tam Sénégal yi lépp noonu lañ ko gisee gis ni daal lépp lañ sa yaakaar mooy njub gi nga xam ne moom moo nekk ci moom jël mbir mi dem teg ko ci aw yoon bañ cee am fu muy xool walla fu mu dul xool waaye rek fastaqim kamaa umirta jubal ni xoj te tegu si yoon yi te bañ xam ne moom la ñuy xaar moom la ñuy yaakaar loolu rek la ñuy séntu si moom te ñu ko si ñaanal si am yaakaar waaye nag dañuy wax ne liggéey bi bu ñu ba mu sotti ba demee nii itam wàllu atte am na si aw jàpp na ni ñu ñu bare bari ni ñu ko wax ginnaaw dogalu borom bi tabaaraka taala ñi nga xam ne ñooy atte luy adduna yi am na noo xam bu ñu doxale woon te amaan na ñu kon suñu maxtaar ginnaaw boo nuyoo dañuy dugal ci lan mooy ak maandu ci islam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp tàmbale nuyoo bi ci alxalifatul am lil muridiya cheikh mahamadul muntaqa xafidahullah wa raa wa waffaqahu wa tawalla di ca teg euh, sëriñ Mbàkke di la yóbbante am nuyoo ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp di ci joxe seen i xalaat te it am ci seen i bëgg-bëgg mënuñ leen fay ñu ngi leen di bu baax di leen siyaare te fas ko yéenee bokk ak ñoom ànd la nuyu di mi nga xam ne moom it mi ngi ñëw léegi ci kanam ñu delluwaat ci émission yi yooyu nga maa ngi dañoo a seen xis yi naa la da doonaa nga baraal yetta a seen yeent mooy la ngay njëkk seen siin sa siin sa dama ci njëkkee ci sàddaga hmm. buñu tegee bol bi bool bi fi njëkk jëlal ñu joxee kaas bi kaas bi njëkk jëlal moom mu ne ba bañee daan rek sax daal lu njëkk la waaye boo bañee diñee lekkal ci bool ba ngay njëkk a jot macha allah bu ko defee ñëwaat ngi euh, mi nga xam ne mooy njiital seet waa ses li ko siyaare moom sëñ Fallou Seck sëñ Dame Touré ak euh, waa personnel bépp ñu mën a nekk ci biir capital beeg ci bitti banqaas yi ci biir réew mi yëpp waaye di nuyu te sëñ Moustapha Sarr mi nga xam ne wax dëgg yàlla technicien la boo xam ne ni muy la sëñ Fallou waxoon da koy yàq ci tàng-tàng bi loolu am solo la tàng tàng dañ ne séddale ci kudd yu njëkk ya bu bëriwul tàng doo lekk lu sedd kon sant nañ ko ci bu baax a baax xam naa laaj bi nga laaj dafa nekk su àll waji question boo xam ne dafay ñëw ci temps ndax euh, al adala qabla al iqtisad économique mënta am te manque amut xool yàlla Ibrahim rabbi ij'al haadha baladan warzuqna halal hmm. waaw nañ am sécurité ba noppi marchandise yi door a ñëw mais bu marchandise ñëwee te police montiwul gendarmerie montiwul tribunal amul ku ne xam ne ne kon bandi yi dañuy giiroo marchandise bi. pour am réew bu mu defalee moom il faut que maandu am. moo fay jiitu bu sécurité amee rek ki am lu bare ki am lu néew ñoom ñëpp dañuy nekk en léegi bu sécurité amul nag léegi marché bu bu bu conteneur bi ñëwee ci port bi ñu giiroo ko. bu marché bu camion bi sarse jëm jëm ca grossiste ba ñu giiroo fekk borom bitig ba fa mu nekk ñu giiroo banque ba ñu toj maa la taarif man alxuraan warsuq wajal hada rabbi jal hada baladan amina na njëkk a wóor warsuqaha lahoo nag su ko defee nag marchandise bi amul dugg si adaala benn borom xam-xam daf ne woon uhibbu adaalata maruusan wa akrahuha ra'isan mu ne uhibbu al adalata waaw mar'usan wa akrahuha ra'isan waaw maanaam uhibbu al adalata mazluman wa akrahuha zaliman dane man bëgg naa justice muy maandute kañ laa koy bëgg mu ne suñ ma tooñee rek waaye su ma tooñee du ma ko bëgg kooku c'est pas normal suñ bàkki ah, wala ma bëgg si justice rek dañ maa tooñ ma ne nañ dem ci yoon mais suma ma tooñee du ma ko bëgg day yàqul réew mu ne itam damay bëgg ak ah, justice su fekkee dañ maa jiitee damaa nekk ci ginnaaw parti pouvoir mais saa yu ma jiitee rek dootuma ko daa nekk rek thème leer na ci ñaari tomb su ko defee kon ki jiite daa war a bëgg justice kiñ jiite bëgg justice waaye loolu la yow li nga njëkk a wax rek moom li muy tegtale mooy waa ji moom jugul rek yëpp benn jub maam benn jubut maam li mu teg la mooy parce que bu juboon du ragal loolu moo tax nga teg ci c'est pas normal nit ki burut xaar bañ tooñ ko rek mu ne nañ ubbi euh, tribunal bi atte ma te bu tooñee ñu ne nañ tëj tribunal bi bu ma kenn atte loolu ay caaxaan la su nekkee ci kaw pouvoir bi rek dootu bëggati justice topp ci loi yi di dambatee ka falaxee ka seppee ka sef rek te bu xasee ba kenn toogee mën ne ko doo fi laale loi bi mais mais Sénégal li ma taqulun maa laa tafaalun ci moom di wax lu dul def dafa bari ndax ñoom dañuy am ay moo yu ñuy wax yoo xam même boo déggul langue bi sax danga koy mokkal maanaam yoon moo moo tim ñëpp nga xam dañ koy wax ba gone yëpp dañ koy dégg. benn borom xam-xam nee na yukrahul kalaam ida kaana akthar min amal wa yukrahu ashad ida kaana munaqidan lil amal ñett yépp benn bokk ci sama ram wax joo xam ne moo gën a bari jëf baaxul kuy dige rek te du matal waaye ki koy yées mooy wax joo xam ne moom àndut ak dara sax ci jëf li nga digle lépp doo ci mosle dara keneen ki koy yées mooy koo xam ne waxam jii ak jëfam ji dañuy jooyoo munaqidan lil amal contradictoire ak wax ji ak jëf ji nee na booboo yées benn baaxu ci mais bu ci mujj kaana al kalaam munaqidan lil amal su boobaa al toujours nee naa la qabla al iqtisaad économique ñu ko sotti woon fii te amuñu ay montage amuñu amuñu policier amuñu ay gendarmerie amuñu ay douane amuñu ay lenn dañu nekk ci fawda ijtimaiya mm-hmm. ku man sa morom dumma giiroo sàcc ak yu mel moo tax kon dañoo njëkk a indi maanute kenn ku nañ ñu ne la na nga toog fi nga war a toog wut li nga war a wut am li nga war a am def li nga war a def su ko defee ngay doon koo xam ne yow ma yoon bu la soxla mukk lu dul yaa dem te yoon bëgg fa aw këyit woo xam ne wuy yokk sa liggéey la xëy ki maanduwul nag fasul yéenee liggéey kooku yoon di ko wër tàmbalee ko ca police ba ca gendarmerie bu génnee dëkk bi ba bañ koy indi ca terminal ba taxawal ko ba bañ koy yóbbu fu ñu koy tëjee loolu la yoon bi jariñ kon yoon dafa dafay suyee ñaari rôle aar nag aji moom ji ci moomeelam ba mu am liberté totale am kóolute ci boppam ak alalam ndax nit fi ñu ko mën a agressé dafa bari nit mënees naa jël ay kontam mënees naa yàq yaramam mënees naa tëj ay biyam benn ci la maandu du nangu ñu def ko ci benn kon maandu dafa taxaw ci dikk ci ki jubadi di ki jubadi limité ko ne ko taxawal yow foo jëm heure bi ngay dox loo yor ci sa loxo loo yor ci sa poos ma sa téléphone am nañ ci droit loolu ñuy wax taftiche mooy palpé su boobaa nag maanati moom borom xam-xam yi ko rustum dafa waxoon ne mboolem jikko yu baax yépp maanati mooy seen njiit mooy njiital lépp sañ bàkki xattaa ba ci aji julli ji ne allahu akbar maanatee am ci dëkk bi bu fi amul bu julli wala danañ julli julli ragal salaatul xawf ah, kon maanate mooy njiital ngëneel yëpp mën na dañu moo gën ci jikko yëpp maanate moom nag su xasee ba am ci dëkk li muy jur mooy dafay def tawazun dafay dafay dafay waral équilibre ndax commerçant bi mi ngi ci lim ne am ci ak yaatu sañ a jël ab marchandise sañ sañ mbàkkee ak camion bi def trente trente millions nga chargé ko fii ñaar képp ne ca muy chauffeur ku emprunté yor ñu sax arme ñu départ ak moom fii ba ci frontière ba ñu wàccee ko fa déchargé ko fa kooka joxaat leen loolu man sëñ bi su amuloon camion bi du départ xaalis bi nga koy bëgg a retiré doo dem banque parce que ba dee banque dañ lay ëldobe kon maanute mooy ndey lépp ci am ci ab état bala ñuy wax état nañ njëkk a indi justice tey bu ñu utul ab réew di ko bëgg a di ko bëgg a sanc ñu faa def dara nañ fa njëkk a def palais de justice moo war a njëkk ci suuf soo xam ne dañ faa bëgg dund ni nga xamee ne daara alquran moo war a njëkk ci suuf soo xam ne dañ faa bëgg a jàmm nga xam ne daan ni moom ku ku ku ku luwaa bi dal sa kaw daal doo ko ko moyee. léegi nag moo xam koo njaboote la moo xam ab jàmbur la. ne alqaanuun fawqal jamii. luwaa hmm, kenn du ko sut moo sut ñëpp moo sut ñëpp. léegi nag luwaa boobu bu sut ñëpp kon moom luwaa yi dafa séddalikoo ci ay luwaa yu bari. dafa am loi boo xam ne dañoo bëgg muy loi loi pabian pabian yow sa jikko yow ngay ab droit de l'hommiste ngay nitu loi ci sa bopp fu ñu naan nit ku amul boppam loi xam nga mooy lan suñu bàyyi. xam sa conscience toujours mooy wax ak yow rek waaw. wax ak yow xam nit ku xamul loi tey mën naa dem léegi utiliser loo xam ne day rey boppam mbaa mu yàq boppam di loo xam ne day màndi yoroon xaalis daal di koy tasaare mbaa mu yoroon ab oto dóor ko fenn ànd ak oto ba daal di moxoñoo dee. kon nit ki daa war a njëkk wut ci boppam loi xam ne moom dafa am lu ko tënk mooy diw di boromi responsabilité wut a gaañu wut a gaañee wut a xañu wut a xañee su ko defee su boobaa loi boobu nag mooy al adalatu tabiiya nit ku ne da ngaa war a mel noonu. da ngaa war a mel noonu. waaw kay nit ki bu wéetee ci yoon woo xam ne du fa dajee ki sàndarma limitation de vitesse bi mu war a daw. wut a xaar ba seeni sàndarma doora wecc doora teggi tànk. mais sama taal est-ce que loolu moom nga duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko ko yaaraale ay gone. mais loolu est-ce que loolu neex naa def dafa am na da nga ma génne waa sax ma duggaat. Hmm. dafa am Chine bi ñu bëggee Chine. Chine genn Chine ah, populaire. bi ñu bëggee ak civilisé. dañoo fexe ba gone yi ñu tàmmal leen ni leen bu ngeen doy dox ci yoon école su ngeen gisee mouchoir acheté wala kopp acheté wala aw sagar ngeen jël ko su ngeen ko jëlee ngeen yor ko seen loxo gauche dem ba ci ab poubelle ngeen teg ko fa ñu ne waaw biñ ko mokkale daal di tàmbali def loolu ñu ne leen desaat na beneen su ngeen jiitlee ak mag mu sànni mbalit ci kaw yoon bu leen ko ne papa lu tax nga sànni boo ko ne tata lu tax nga sànni jël ko nga tolloog moom waaxu bu ko nuyu ko ba mu fay la nga dem jiitu ko ba mu gis la nga sànni ko ca popeel ba continué te bu ko wax tam bi <laughs> tàmbalee loolu nes tuuti mag ngi naan waaye ñun gone yaa ngi ñuy jàngal bi te xamuñu lu xew si tuuti léegi nag mag mu ne da ngay rus sànni dara sa doom wala sa sët foofu eh, sax ma jox la misaal am na am na am borom kër goon li ko tax a jàng nee na doom ji daa dem si di nab nab nee na fu mu toogee rek am ku ñëw di ko laaj masala si diine mu ne ah masane mi nga ma laaj de moom xam naa ak ko dégg dama a xaaral ma dugg si biir laaj ko mu ñëw xool xool ne sama papa daa mel daa génn nañ ko xaar mu génn nee na xale ba toog xale ba papa bi nekk si rondal gi rek <laughs> nee na ba mu yàgg waa ji ne comme na xaaral ma ñibbi ba suba nee na nag su bi mu ne bi mu ne bu subaa lay ñëwaat nee na si guddi gi bi mu juree timis nee ci la paa bi tàggatoo ne day jàng <laughs> ndax nee comme doom ji orienté na ko nga xam léegi doom ji digal na ko mu jàngi te laalu ko ndax question bi mu dégg rek ne ko li nga ma laaj moom moom àgguguma waaye sama papa si biir ah. nee daa dar gimiñ gi daa dugg si biir noonu la ndax rus nañu waaye gis nga ne xale yooyu kon nekk yar nañ léegi nag su boobaa sañ sañ bàkke nit ki kon boo bëggee jëmbat dara ci moom te gone ya nga koy def nag daa gaaw a fàtte waaye daa daa mën a rus mag fii ne boo ko doon defal nii mën na koo def tey bu subaa jàmm ne hee fàtte na waaye bés bu gisee gone di ko def naan ah sama doom yi kët ak sama sët yi ak sama rakk yi léegi nag lan mooy al al adatu tabiiya mooy al insaaf mooy maandute mooy yow xam nga sa bopp xam nga seen ci sa morom xam nga leen ci wut def su ko defee nag adala al istinaaiya mooy bi nga xam ne dañ koy créé ñu ne dañuy def loi sàngam article sàngam bind nangam ko def nangam nangam lay àtte foofu la soxna si waxoon léegi rek ne la jëwhër bi mooy kon nga fexe ba yow nga baax léegi nag xaanuun bi mooy nga dem ñu ñu teg loi boo xam ne boo baaxul nga wuy ji yoon kon nit ki diggante moom mooy mu nekk insaf mun sëf nga baax ba bañ a wuy ji yoon moo gën nga dem ba ca yoon ñu jàng ay texte di la ca àtte moo tax kon nit ki gën al insaanul xayr mooy ko dafa fexe moom ba di yoon wuy dox di maamte buy dox kenn du ko woo ci yoon li nga xam ne daa jàdd nag moom yoon ba jàdd yoon kooku la ñu yóbbu te palais de justice ak feneen di ko fa àtte bu fekkente ne tooñu hmm. léeg-léeg rek ñu àtte nit ci tooñ benn adaala bi ci des di adaala bi nga xam ne tawziya la hmm. li nga xam ne yaa ko yor nga bokk ko ak say morom hmm. bañ këppoo kees bañ a rawale boobu de moo jafe moom a a bañ yu baree bari li nga bokk ak say morom nga séddale ko ci digg bi lu mooy al adaalatu tawziya moom boobu yombul li tax mu jafe sëñ Mbàkke danañ ci dugg tuuti tey kiñ ne yaa yore agriculture baykat waxuma la sax boo ko indiwoon ba ba ne ko jiw waa ngi nii wala nga ne ko matériel waa ngi nii képp dana ko def problème nu muy def ba xam ne jiw woom ak nu ngi def jël matériel nga xam ne dégg da am ñu yëg ne ñoom dañu leen jox aw jiw mbaa ñoom dañu leen jox euh, matériel wala ñu yëg dañu leen jox engrais te ñun gisuñu ko dañ koo dégg doom kooku bu la neexee fu la neex mën koo def ci kaw ba neex nga def ko juróomi saako ne ko juróom la woon te fekk téeméeri saako fu mu koy jooyee su neex nga jox ko wenn nag wala benn machine pëlëkëlteur fekk ab tracteur la woon fu mu koy jooyee boobu ñàkk moo tax alal ci tension yi moo gën a compliqué ci mbooleem bi ñu tuddee justice yëpp ndax yow ki ngay jox dafay nekkul xamul transporteur bi xamul oto bi yëgu ko yaa ko ci dugal xamul prix bi baykat bi xamul machine bi xamul engrais bi xawul. mais loolu lay loolu ba si ay nomination rek. ñëpp am yoo xam dafa laaj appel d'offre nga jékki da nga jox ko. da fekk amul amul yenn capacité pour réaliser loolu. Eh, mbaa nga jël benn waay boo xam ne dax koo koo jàng ëppoo ko ëppoo ko diplôme. nga am sa cabinet mu ñëw fa di liggéey bis bu seen nga dóor 3 millions 4 millions sa bénéfice dégleel ko benn 100000 francs par weer 100000 francs boobu ci lay paas aller retour. bu dee jamono ndékki ci lay ndékki ci lay añ kooku bu weer wi dee cent mille yooyu bu amul sens dana yore restaurant bi dara loolu adam adam tawsiq da koy réglé bu jafe moo tax cas yëpp moo ci gën a compliqué ndax yow li def ñi ngi koy séqal duñu mën am na ñoo ne laa xawla lahum wala quwwata dañoo ñëw rek ne ah man ko dina amal dara naa ci jàpp te loolu ni si wàllu adduna noonu la rawee si wàllu diine d'accord léegi nag xadaala boobu sëñ bi bu jàllee ada al adatul islaaxiya moo ci tege mooy def yëpp baax mais adatul tawsiiya bi war nga su mel maa ngi gis ñoo euh, Abdoulaye ibn Omar bi Seydina Omar ñoo fekk mu yor ay gileem yoo xam ne gis ne ay gileem moo gën a suur ko lu ko waral mu xamal ko ne yoon mu war a jaar la war a jaar waaye si ak gàttal daf ko xamal ne ko dégg naa boo ñëwee dañ naan doomi xalifa bi ñëw na nga xam moo tax ñu écarté seen ay gileem yow say gileem naan bari yee doog naan comme noonu la demee da ngay dem nga jaay ko nga jël sa capital li nga yóbbu ko baytumaan. waaw xool xool kooku ma kooku. loolu nag. yàgg mu ne dëkk sàngam fekk boobu waa dëkk sàngam seen i si dañoo def benn délégation spéciale ñëw ci Seydina Omar ñëw nuyu ko ne ko ñu daal kañ booleel. yéen a ah, ngi mosoon naa ko benn émission. kon kon ñu ko bëgg xam nañ delluwaat foofu moo moo bañ ko répété waaye li am solo rek mooy bonne gouvernance nañ ko doon jàngale ndax ka fay nekk jaraaf ja moo nekk tête de liste te way ñàkk loolu rek ne kooku moom adawatu tawsin nee na bañ ko laajee dane man li ngeen ma jox daa considéré mënumaa tëdd ba guddi nit amul lu mu reere damay njiital jullit yi fii moo tax ma séddoo kook ñoom ba bala ñoo dem la 15 ma tàmbalee lepp la 15 ba la mais loolu boo ko doon a wéree bi. ok ñu ne tey loolu boo ko doon kii daa dof sax la ñu wax. Ah, waaw léegi nag xanaa isla islaaxiya bi. mooy. wala ñu ada ala ala tasxiixiya mën na koo nekk. Ah, xam nga li sañ sañ ah, mooy la nu ñuy def ba kenn ku nekk lu waa ñëw ci yow ne la lii nga war a def nga bañ koo weesu. bis boo ko weesoo ci jël loo wut jël. mbaa nga weesu ko ci def. noo wurta def mbaa nga weesu ko ci wax loo wurta wax su boobaa bu la susti di jóge jël si du tàgg sa yaay du tàgg sa baay loolu mooy lan adaltu euh, islaaxiya moo moom sax dañ ne mooy li ñu tuddee damaanul ijtimaai mooy sécurité sociale sécurité sociale mënta am ci lu dul adaltu tasxiixiya maanaam bu fekkente ne ki këppoo kees toppuñ kees gi ba mu dellu si islam nangul lool kii tuub dañu ko raddul mawaalimi ilal arbaabi bi dartiyaabi boo këppoo kees da nga koy andi sottil xaalis bi nga andi woon fii bañu bañu ko su boobaa nag bi nga bu neexee kii atte mu gracier la mais kenn du gracier ku yore yëfi jàmm loolu si la nag maa fi boo ko defoon léegi day yaakaar da ngaa soxor mais ko ak kees nag moom waaw xam nga ko ni ko dellu si waatal yëfi askan maa doon am alal ñëpp moom ñëpp bu ko kenn jëlee bu faatu woon sax waruñu ko ba nekk ci miraas am na àll yoo xam ne kenn du ko miraas dañ koy génnee parce que dañ la li nga jëloon ci nit ñoo xam ne ci nit nga ko jëlee woon buñ ko tegee ci miraas kon nag islam andi na ne la. li nga jëloon doom moom moo ko kenn du la ko baal. mën ngaa démissionné manis na laa baal tëj gi. mais delloo si alal gi moom nañ koy si force xattaa ci bu gouvernement bi nga xam ne beneen gouvernement bi Léopold Sédar Senghor ndax lañ ko mën a andee mooy ñi nga xam ne nekkul ni kii atte moo soxor mais mais mais dëgg moo war a taxaw si ko violé yéen su ngeen sàkk année nii da ngeen jaar te yoonu yoonu ñi leen jiitu woon fañ ñu ne ko fu mu doon mu ne bu sërif tooñee muy ku ngand ñu nëpp nëpp bu ab baadoo la tooñee ñu dagg boppam mbaa loxo. law anna Fatima bint Muhammad. daal ne ces loxo doom bi daal man arafa ni faqad arafa haadi ku ma xam-xam ne kii. haadihi hiya Fatimatu bintu Muhammad. mu ne am kon loolu mooy islaaxiya nit mënoo defal réparation. da nga ne da nga ne Ousmane ñu koy a dagg France gis nga nam nanguwul war a wéyal àttab suñu borom ñuy def intervention. jàpp na loolu Sidna Ali ibn Abi Talib moo gën di xaañ a bokk leen ab yéexoot la demal tribunal ñu taxaw ci ci vélo bi. ko euh, xaw a ko neex Sidna Ali loolu dama naqari lool après nga leeral moom mu ne ko tax ngay taxaw ci biir nit ñi di ma di ma màggal damay dañ war ma àpp. Omar daal di jooy nag man damaa daa kon sax baat ba da laa naqari mu ne ko déedéet noonu nga may yog yogale mel na naan son excellence ak monsieur waroo ma ko wax ci biir maa ngi ñëpp a parce que mi ngi lay negal daal. waaw ah. kat bi ko bi ko Seydina Omar waxee loolu Ali dafa naqarlu Omar defe ne Ali dafa naqarlu ci dendale gi ñu ko dendalee yéexoot bi att bi nga daal nekkati yow Aliou li ko ci naqari mooy yëkkati gi ñu ko ci yëkkati. Hmm. loolu sax man nga see jël message Cheikh Salim Mbacké loolu xam nga man nga see ñëw. Ah. daawul nangu di dox sax nga lalal ko pour wane ne yaa ngi yëg dara ñaaw tey bu doon génn nga lalal ko dara bu bëgg see jaar day teg même si si si saali bu bu mbooloo mi toogee nii su dee bërëb ki ne yaay fi mu ne yaay du ko jaar mu ki ko yaatal danaa ne su la boo toogee ni ma xam fi may teg sama tànk lu jub nit mukk te su mu ay dàllam du ko teg mukk ci basam bi nit di toog. bañ a imposer benn pouvoir la. waaw si romb na sa mbay jóob ca Mbour. rahmatulah aleyhi. daal di ñëw ne ko fekk sëñ bay nekk xam ne dafa toog kooku mu gisewul sëñ bi sëñ bi daal ne asalaamaaleykum sëñ bi sëñ ne ko eh mais daal dafa réyal sëñ bi dikk gi muy dikk sëñ bi ne ko sallaaw li ma la yilif yéen defi ne moo la romboon bañ laa nuyu ubbi sama bopp boo ma fay du la wàññi ko pour wan ko ne ko nit day xam bopp nit dañ koy jox ci yow mais li fekk ñun ñi nga am ay ay catégorie ay tabaqaat première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie catégorie derrière loolu mooy yàq te loolu day bolok nit sax nag. ndax fi ne nit ki suñu mbàkkee ki nekk président tey boo dawaloon daal day mel ne 81 82 bu ma juumul diggante yooyu wala 1979 80 la judd te 42 ans moom 79 la. 44 ans 44 ans 44 ans 80 79 la jàpp 80 ndax ñu ngi ci 2024. tey soo doon xool fi mu jaar bu fekkoon ne jaarut dëkk bu am justice est-ce que moom 44 ans mën na fay jàng. bu nekk bu dëkk bi nekkoon temps de guerre mara day taali est-ce que bu fekkoonte ne amuñu ay hôpitaux yu ñuy faje am ay arbaina sanatan yatihuna fi lardi boo ko doon est-ce que danañ am dara kon nekkete organisé mooy tax nga mën a jur waliyu kaamil mooy tax nga mën a jur ab unit mooy tax nga mën a jur ab président mooy tax nga mën a jur alim désordre moom mënut a jur dara fawda fawda mënut a jur dara dañ ne lépp lu mu jur sax véhiculé mujj ba ca mujj mooy rayante su ko defee kon adaala mooy mooy lépp su ko defee nag ki am adaala la dafa euh, euh, euh, imaam Shaafi'i moo waxoon wax jene fabda bi nafsika nit lépp lu mënti doon conscience bi nga waxoon dafa am solo ci nit dañ ne al mujrimu fi iqaabin mustamir wala win fa wala win falata min al qaanuun laa min al damir allati tanuub saay-saay bi mi ngi ci toujours mbugal bu tojee banque bii kenn gisu ko xamul bu xëyoon mi ñu def lii risournoyee ba xam ko tojoon banque ba fuñ ci toll mu neexee am na def ay ay ay ay gëstu ci biir koñ bi moom bu doon añ day suur su doon nelaw naan jaraax dara jaraax toujours daal ci mbugal lay nekk ci mbugal la ne moo tax ñu ne al mujrimu fii benn falatan min al qaanuun doonte qaanuun jàpp ko léegi muy moo tax ñu moo tranquille tranquille amul daal mu ànd ba daal jubadi mu mu ànd ba tudd doom yi dañ ne kuy wax yow ku nekk sa conscience ko gën a dëgg hmm? ki ñëw xamoon la barki démb di wax ci yow nekk dafa ma fa fa fa muy waxee dëgg la warul dëgg ki nga xam ne fekk na la tey tey tey te xamul loo yendoo mm. waxul fi muy waxee mm. sa xol nag fu mu waxee fa nga mm. lu mu waxee na nga mel moo tax ñu ne kon na ku ñuy màggal xol baa nga naan ko jëroo ko de am ku ay dàll ñu ko jëroo ñu summir mbaxana ne ko jëroo ku ñu toojal mu ne ko jëroo ko de xam nga ma xam mooy mu xaatabatu damir sa conscience day wax ak yow moo tax ñu ne kon nit li gën ci moom mooy mu njëkkee jub ci boppam. ci boppam rek waaw war nañu la ne ah, al nu mu ko waxee nii feeri xaabir min diinihi jooju. waaw ah, xaabis boobu waaw li fee tooñul alali jàmbur tuurul deret day day am tranquillité. day yaatu daal day yaatu. nekk si environnement bu féex. waaw yooyu yoo ci def yi nekk fii ne bari na sëñ sëñ sëñ Mbàkke ku la romb ak oto boo xam ne. waaw ah, mooy gis naa ah ay jiit la yoo mun xalibaatun rek. gis nga am na ku la romb ak oto. oto ba yow bu ñu la golf bi rek golf bi bu ñu la ne woon kaay yow nga oto bi nga nga nga nga nga nga jëndal ñu chambre air doo ko am kati biir oto ba la muy jànkuwanteel bu sañoon day sànni oto ba ndax yay waxal moom ci biir oto ba day bari nga gis koo xam ne ma ngaa ko sareetam mbaa aw fasam mbaa mu war ci wutam li ñu wax ak mbaam te yëgul dara dafe na adduna bi moom la ko yàlla bindal kon ndekete conscience mooy nit nit nag li ëpp ci li muy tooñ lu laa yabla batnun aadama illa turaab wa kama qaala nit bu cinquante mille lay dépensé ci quatre vingt dix ans wala cent ans da du jeex loolu la nit di doyee quatre cinq milliards mënees naa am cinq milliards ak milliards ci intérêt nga liggéey ko ba am ko waaye waroo ko am ci tibb ko di yóbbu su boobaa jafe-jafe yooyu nag balaa am réew a dox dañuy indi justice balaa diinee dox dañuy indi daara loolu moom ñaar yooyu mun addi la wax ne laa mën a xasal fii waaw moom pour régler mbir yëpp euh, jarul dugg yu génn yu bari yi dugg yu bari maam daal na dëgg taxaw ñëpp yam si kanam waaw kum bayna naas bil xaq hmm. wala tattabiin hawa attel nit ci dëgg te bul topp bànneex ku jub fay lay xam kooku moom taxul ñuy wax yoon ñu teg la ci loolu moom bu amee ci am réew mu mën a am fokk réew moom suñu borom dana leen defal développement jàmm dana ko am keroog Seydina bi mu jël fonction ci jàkk ji daf ne man mii Omar jiital nañ ma waaye gënuma leen tax ma jiitu ba mu àggee ca accord ya dana su ma su ma su ma dëngee ngeen leen mu ne benn arab yu génn. ah waaw waaw amara ne ko la wax. soo dëngee suñ jaasi yi moo lay jubbanti. Ah, mu daal di jooy daal ne alhamdulilah kon lee ma am dëgg. nekkati nit mi nga natt ci sa morom bala nga sa morom natt sa te boo ko mënta sol sol boo ko solal sa morom. njiit day nangu ne a nangu ne am na yeneen critique yu baax. tey rek du tudd kenn am na ñoo xam ne fi ne ñoom bi ñu seetee ba xam lii amatuñ ci yaakaar wala bokkuñ ci wala doonatuñ ci dara dañoo taxaw ñoom yor seen i làmmiñ di attaque. di xaar waaw naan lii diw nii la mel ak di di di gis nga bu liggéey jotee liggéey bu jotee sëñ Mbàkke bëgguñu koy wax dañoo bëgg ku liggéey bu liggéey jotee bëgguñu koy wax dañoo bëgg ku liggéey. fii ne kenn ko taxaw naan lii baaxut ak lii baax na daa bokkut ak ku mën a def lu baax mbaa mu mbaa mu tële ko def xam naa li nga indi mat ko leerale façon maanu yi nga xam ne am na yëpp surtout moo jëm si wàllu waaye boo si dugalee nga ne mënul woon ñàkk kon mbokk yi ñu xam ni am réew lu mu mu jàkk am réew ma kër pour mu jàkk société pour mu jàkk dara mënu see am loolu ne mbir dañu ko teg ci kaw ak maan ndax suñu borom loolu la dégg yonent bi si noonu tam la bindee ak suuf maandu ak organisation maandu ak organisation lépp lu mu dugg suñu borom mën na sa def najaa kon mbokk yi foofu lañuy ñuy yem suñu numéro ñaar fukkeel bi ci émission yaru ak yare di ñaan borom bi tabaaraka wa taala defal ñu ak dégg ak topp di dellu di ñaanal bu baax na baax Euh, suñu maxlaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom daal ñu koy def euh, li nga doon wax itam maa ngi fàttali suñu benn mbokk boo xam ne si Moustapha mi dëkk Almadi sëñ Omar Ndiaye Mermoz mhm. ñu lay sant bu baax a baax tey bind sax di yónnee ay message yoo xam ne ñu santal mhm. euh, kilifa gi C3S ñi nga kër mhm. ñu ñuy wax ni ñu war a def. ndeysaan ndeysaan mënu dañoo dem jël suñu àll naan dañuy jàng. kon nga xam ne kon nekk yaa ngi koy ab bunt boo xam ne ay junni junni nit ñu ngi si jàng. loolu mbokk yi lu am solo la. ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu ñoom it ñëpp mat nañu mat nañu sant ndax dañuy saxoo bi ay messages. ñu ngi bu baax nag di ñaanal dam ñi nga ne ñooñu may liggéey bi ñu mën a doon bi jàngalante ak mm-hmm. unité mm-hmm. suñu borom gën leen a sàmm gën leen a aar yokk leen bi ak biti mm-hmm.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 مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون